Would you be my girlfriend? Uh, eh, eh. yëpp yëpp yëpp salaamaaleykum salaamaaleykum les amateurs du pop Galsen te dañu ànd ak benn immense plaisir fii nii ci grand théâtre ak fan muy lan The Last Cri Show ah, il a fait une fois gars da koo tandu wala tandu ko mu ñëw ne dama koy defaat ne comeback show tey ñu am benn invité bu ñaan kan kooku il n'est plus à présenter dans le game muy kan DJ Tall ñu ngi lay ziar. delloo ziar salaamaaleykum di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant waaw seen kaddu pégé waaw. léegi taal ñu gis ne Omzo daal bu mu duggee ci game bi ak Buzz Lab andi pour muy clair pare teg dëggantaan yaa ngi dégg pare ñëw andi bët ak làmm euh, avec dëggantaan mu jël euh, artiste de l'année avec euh, mu ñëw bët ak làmmiñ même succès teg vente de record ci album bi et léegi tey boo doon jugé Omzo Dollar fan la toll ci game bi. fan la toll ci gembi am Omzo bon fan la fan la toll ci carrière am wala moom ci yeneen artistes par rapport aux autres artistes exemple tay boo ko doon cité mën nañ ne bokk na ci tenor yi. bon waaw salaamaaleykum encore une fois xam nga bon artiste mhm. euh déjà gars yi ku nek ak nu muy def xam nga c'est vrai que hip hop le rap le ñom ñëpp ay artistes la ñoom ñëpp ay rappeurs la ñom ñëpp bon c'est des artistes musique urbaine mais bon lu ñuy def dafa wuute ku nekk ak style donc bon pour comparer leen peut-être da ngay djum mais veux dire, mëna wax suis mom fan la tollu ci carrière vraiment dafa nekk ci li nga confirmation parce que technique na instant bi mom de comme ni nga expliqué peut-être ñom ñuy don sikki est-ce que mom la wala dafa am leneen nekkon ci ginaaw <laughs> def de toute façon dina quoi ci compaction numéro ok merci. Would you be my girlfriend? Uh.